donte xëy na coow loole évolué na wante nag euh, daf ñu may ñu mun a ñëwaat ci loolu ndax ba léegi mu ngi wéy euh, ci yenn euh, xëy na xeet yi wala waaso yi ba pare di indi ay loraange njortu ngeen ne ñàkkul mbirum kast la ñuy waxtaanee muy mbirum waaso ñi naan géwél lañ ñi naan géer lañu loolu yàgg lool ci Sénégal wante nag tàmbali xëy na am ay loraange yu muy indi yàgg na sax gaa dafa gën a fës jamono yu ñu weesu docteur Abdou Khadre Sanoko ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci waxtaan wi. maa ngi leen di fay bu baax madame di leen gërëm di leen sant di seen auditeur ak seen auditrices yi nga xam ne ñoo leen di teewlu. ci weekend bi et puis di leen souhaiter aussi sunu meilleur vœu di leen ñaanal atu naataange atu jàmm ak salaam. amiin ñooy psychosociologue sa xel màcc oh. lool ci askan wi ni muy dundee. muy uh-huh. euh, émission bu njëkk ci atum deux mille vingt deux ñuy ñaan mu nekk at mu barke ànd ak xéewal jàmm ak sutura. alors docteur ni ma ko waxee wàllum caste fan yi ñu weesu. dafa fësoon uh-huh. lool ñu naan uh-huh. euh, ca Pout ne am na ñu ñu fa bañ a rob muy ay géwél ndax neenu dañuy am lu ñuy am njeexital ci dundu askan wa. waaye gannaaw gi dégg nañu évolution bi ci am mais du tee dinañu waxtaanee mbirum euh, waaso ndax euh, dafa yàgg ci Sénégal te itam ba léegi mu ngi wéy di am ay njeexital ay loraange sax laay wax euh, loola ndax mën nañoo xam cosaan li fan la jóge ba tax xëy na mu law ba léegi ci yenn xeet yi. waaw xam nga waaso nag moom wax dëgg yàlla ku ko wax. ku wax li ñuy wax ku tudd ku wal mburu tudd dëkk Mm-hmm. en vérité mënuñu wax société mënuñu wax askan mënuñu wax xeet bëgg ce génne aussi euh, mbiru waaso yi te loolu aussi du du rek sax Sénégal rek la am ah. mm-hmm. soo demee ci dëkk bu waaw soo demee ci dëkk bu am bu mel ni Inde tey waaso foofu la gën a jéggee dayoo sax quoi parce que ñoom dañ koy jël ba koy jël ci problématique de pureté ak impureté ah loo war a jege ak waru loo warul jaar mais euh, soo ko buggee analyser d'un point de vue euh, en fait chronologique da ngay jël ni dund ci boppam dund. Mm-hmm. moom moo am li ñuy wax catégorisation. xam nga da ngay wax ne lu waw ak lu tooy. Mm-hmm. wax lu kawe ak lu suufee. Mm-hmm. wax góor ak jigéen. wax ndijoor ak càmmoñ. donc catégorisation ci société humaine ni muy ni muy ni muy dawee. dafa nekk loo xam ne nii lu fi yàgg am la depuis jamono sosu. léegi nag ci catégorisation boobu maanaam ku nekk ñu xam sa wàll ak foo féete ak ñu mën a takkale nit ñi. ba war leen mën a xàmmee mm. ci ni ñuy dundee ci fi ñu soqi ko mm. ci seen i cër loolu dafa ànd ak dundu askan mais problème bi mooy nag est-ce que après par la suite nan la ko gars yi galvaudé en tant que concept mm. mais à soo jëlee waaso euh, nekkul leneen lu dul woon loo xam ne nii dafay matérialiser li nit ñi di jëfandikoo en tant que seen liggéey wala seen métier mm-hmm. pour mën a ñu xam ne ñii ñooy def lii ñii ñooy def lii ci biir ci biir loolu fondamentalement dafa amoon li ñuy tuddee dafa amoon li ñuy tuddee véritablement euh, li ñuy wax euh, ñi nga xam ne ñii dañuy jëf lekk am ñi nga xam ne ni dañuy sab lekk tey boo ñëwee ci socio anthropologie de la famille dafa am ñaari élément xam nga jëf lekk yi mooy ñan hmm. mooy ñi nga xam ne nii en fait ci seeni activité ci seeni activité professionnelle en fait c'est hmm. ça c'est véritablement ça mooy ñi nga xam ni dañu kii dafay def euh, cuir lay jël mu koy transformer ñu ne cordonnier la que hmm. la jël ay tissu di ko ràbb ñu ne tisserand la que la jël fer ñu ne kii forgeron la donc a la base kay man damaa jàpp ni ci li Sénégalais yi xamul sax ni mais ñooñu ñoo ñu am jom ñi sax parce que ba léegi waxuñu chômage on parle d' activité professionnelle. Hmm. nan nan la ñuy catégoriser ñi nga xam ne dañuy ñàkk di yóbbu seen kër ñu ne ñii ñooy jëf jëflek mm-hmm. mooy euh, tout ce qu'on appelle euh, caste yi nga xam ne nii tëgg euh, uude lawbe ainsi de suite mm-hmm. maintenant mu am feneen foo xam ne ñooñu seen seen magie wu communication la ñuy utiliser mm-hmm. d'ailleurs aujourd'hui da am na sax ñuy wax ne li ñuy wax journaliste reporter tout ça foofu la jugee à la base comme racine loolu loolu la ñuy wax les mooy ñi nga xam ne nii ci seen kaddu Mm-hmm. ñoom ci la ñuy jëfandikoo maanaam tey boo jëloon lu mel ni communication sociale nga am loo yëgle. Mm-hmm. ñoom suñ ko yëglee ci lay gën a am barke. Mm-hmm. ñëpp wuy si leen te dinañ leen dégg. soo jëlee luy ngénte ci suñ ko yëglee même chose. soo jëlee ñu ne tey dafa war a am gàmmu fii wala mu am ndaje bu mag suñ ko yëglee même chose mieux sooy dem di xeexi ji wala ngay dem xare ñoom bu ñu la kañee. ci sax njàmbaar pour nga dem wuti ji loo xam ne ni sa askan moo lay wutal histoire wane na ni effectivement am yu bëri toll nañ ci diggante kañ buñ leen kañ ci communication moo leen gën a yokk njàmbaar ba ñu tëj am na aussi ñoo xam ne ni dañoo bëggoon a toog pour def yëfu guerrier mais ci ci magie wu communication bi nga xam ne nii mooy griot yi leen accompagner mm. dañ lay wax carrément ñun li lañ fi wut si woon comme am nañ ko ba pare wala gisuñu ko fi yenn njàmbaar yi presque xaru la mm. sa réew daf la soxla sa askan daf la soxla mm. wàññeekul ma dàq fas wi mu rombuñu ñu xam ni dañoo wuti woon kuy wuti mooy perte donc ci te ba fi may wax ak yow nii nag tey soo xoolee ci monument yi nekk ci réew mi. Mm-hmm. réew mi xawoon na fee peut-être ci ay éléments ci ay événement war mën a dëng. Mm-hmm. ci seen kàddu ñu waxaat mbir yi jubbantiku parce que ñoom lu rafet la wax parce que ñoom ñaw la ñuy def. Mm-hmm. léeg-léeg sëy sëy war tas. balaa muy egsi si imam bi wala prêtre bi ñoom ñu wax ci lu baax wala ñu def ko ci. léeg-léeg sëy war a judd fenn. ñoom ñooy dem defi enquête yi ba xam ni diw mi kat soo ko mayee ak diw mi. Hmm. ci famille bu baax la donc amul woon benn peut-être relent boo xam ne. boo décompté daal bu ci am ostracisme la voilà marginalisation la au contraire. dafa am benn sociologue bu ñuy tuddee Émile Durkheim moom dafa waxoon ni sax gis nga mbiru caste yi ngay dégg nii ak affaire yooyu dafay dem bay créer li ñuy wax solidarité mécanique ak solidarité organique donc à la base def doon poser un un toile de fond un principe fonda fondamental xam nga mooy mooy la complémentarité man mi nga xam ne nii damaa mën dagg garab te mënumaa mm-hmm. ñaw damay xam ni sama dund mënuma mm-hmm. koo def te génne ci ki nga xam ne dafa mën a ñaw ki mën a ñaw xam na ni su amee ngénte te waxu ko ki mën a yëgle ngénteem du yëwu wala mm-hmm. aajom du faju kon dañ daan mottalante voilà loolu la ñuy wax la une société complémentaire et solidaire à la base loolu moo sancoon mbiru waaso mais newul woon ñii dañuy boot di konteeg di wax sama deret moo gën sa deret tout au contraire dañ wax kenn ku nekk am na pàcc booy joué ci société bi ñun ñëpp suñu joué suñu pàcc nag ñu mu nekk encore une action collective boo xam ne nii société mun na cee raw mu rëcc parce que askanam ñi fa ñi ko ñi ko tënk ŋànk ko ku nekk am na foo mënee ak loo mënee j'ai envie de dire c'est presque une sorte d'orchestre mm-hmm. waaw léegi orchestre boobu nag ku nekk instrument bi muy liggéey moom mooy def harmonie musique bi mu mën a neex pour ñëpp mais nekkul woon pour di di di di bàkku wala ngay boddi wala ngay xeebaate voilà c'est ça loolu taxu ko woon a jóg malheureusement nag bi société bi di évoluer mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo ngankoon et je am na ñu ñu ma ko doon expliquer fan yi ci ci samay sorties yu ma def j'ai dit euh, xam nga nit day nekk ci benn askan kii ne géwél la kii ne géer la kii ne tëgg la ñun ñëpp ñu toog ne am nañ jàmm loolu la ñuy wax la paix négative mm-hmm. gis nga ay nit ku nekk bu tënkoo ci benn xeet wala ci benn waaso dafay baax nag ñuy def dialogue maanaam ñuy saafonte xale yi fa juddoo ku ne di xam sa important su morom Sénégal nag pendant un bon bout de temps Senghor avait réussi ce pari la malheureusement ñun yeneen euh, ñun ñun ñun ñun ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñun ñoo nekk si modernité bi duñu xar suñu tànk tubéy ci def ay grandes rencontres de culture ay grands dialogues de cultures loolu la ñuy wax interculturalité loolu la ñuy wax les les l' appropriation des compétences interculturelles waaw léegi nag su fekkee ni nag affaire boobu dafa dafa rëcc am nga ci ci lan la ñuy dem. Hmm. mooy la culture de l' apologie. culture de l' apologie mooy ku nekk danaan sama xeete fi nekk. egg nañ ci man du ma moroomu yeneen gars yi te loolu nag. Hmm. soxna si hmm. suñ ñun ñëpp suñu xoolee ñun ñëpp am nañ ci part de responsabilité parce que nous avons été spectateurs fii. da ngay am sa benn affaire bu ndaw sa anniversaire nga woo say euh, tëggkat woo say bongo man ñu lay tàgg di la wax doo moroomu diw doo moroomu diw doo moroomu diw dafa am tubaab bu mag bu doon wax le moi et Aïssa réew bu ñu demee ba ku nekk saa yoo jëlee parole di wax xamoo leen ma man maay diw hmm. yëkkati sa bopp wàcce ñeneen ñi donc loolu la ñuy wax regarder les autres de haut Sénégal nag dañu am un peu si vous sa problème euh, de la découverte de l'inconnu ñoom dañuy wax ni lu ñu nekkul xamuñu ko bokkuñu ca or dañuy wax dans l'inter voilà dans l'intercul la question de l'altérité autrui est une partie de mois même ki nga xam ne dafa wuute ak man dafa bokk ci man parce que dafay dafay feddali kennuk sama xam-xam di feddali kennuk sama nekk man mais su fekkee tey d'ailleurs on on dit la beauté d'un tapis se mesure par la multiplicité de se couleurs mhm. tey bu fekkoon ne da jël benn tapis boo xam ne yëpp dafa ñëw rek nekk benn couleur fu couleur bi dina xaw a des mhm. mais lii lii tax ñuy wax état mooy xeet yi nga xam ne ni dañuy dañuy duggante dañuy saafonte ba kii ab tukulóor tuddee soose doom soose may jabaram séeréer séeréer euh, si vous def euh, njëkkee wala mu def càmmiñ wala mu def euh, un peu euh, baayu jiitlee wala euh, si vous voulez baayale boppam wala mu ndayale boppam koo xam ne nii pour la fuutal mm-hmm. mais léegi Sénégal nag loolu dafa ñàkk lépp ça se passe dans une approche si vous voulez endogamique endogamie mooy ànd yoo dañ koy def ci biir xeet te duñu du ñu jéggi suñu xel. Mhm. léeg-léeg nga dégg ay notion yoo xam ne vraiment c'est c'est extrêmement euh, ubuesque mhm. où les gens disent sama xeet kenn du ko rax. te j'ai j'ai loolu nag ngay gis ni mu nekk ci ethnie bi. Mhm. mu nekk ci waaso bi. il faut que nit ñi comprendre dans l'analyse que loolu mooy guddoo bi faire déborder la base vase plutôt mais jugewul gis nga guddoo bi bi bi bi la guddoo qui a le vase en que jugewul jugewul du tout ci ay histoire rek. caste am na feneen fu mu tënk. Hmm. ñun ah si. lan moo ko lan moo ko sooke lan moo nekk déclic bi ba tax yëf yi wëlbatiku rek nekk mbirum. lii corollaire la en fait lii conséquence la. Hmm. xam nga quand le quand le vase a débordé. Hmm. dafa amoon leneen lu nekk ci suufam. waaw li nekk ci suufam mooy lan mais madame fii da ngay ñëw ñu ne la confrérie tel duñ ko may benn confrérie tel parce que ñun suñu kër soo nekkul ci benn confrérie mënuñu laa maye. am na Sénégal wala amul waaw. Ah, am na am na fi. Mhm. réew mi da ngay ñëw carrément ñu ne la écoutez ku su fekkee ni comme amoo yow weccet wala amoo xaalis wala amoo tur. Mhm. waaw loolu nag loolu la ñuy la culture de l'individualisme. gis nga boo tënkoo ci groupe. Mhm. di dem ba ku nekk di xalaat sa yëfu bopp bopp sa bopp. mais foofu nag la danger bi amee ci la ñu commencé di la beddi duñ ko may diw parce que bokkul ci ñun parce que ostracisme boobu. ci sunu biir ci sunu biir ñun ci sunuy approche ci ni ñuy foowee ci ni ñuy d'ailleurs aujourd'hui soo jëlee lépp du ma wax benn xeet toujours ci lépp bi di nga jël benn xeet boo xam da nga xeet boo xam da koy tourner en dérision jox ko ñaari ñaari affaire yu graaw ñaar benn bi mooy les clichés benn bi mooy les stéréotypes cliché mooy nga jël image boo xam ne bu sombre la mm-hmm. nga jël ko daal jaar jël benn xeet pour aucune raison ne xeet bii nii lañ mel Sénégal est-ce que waaw wala déet bis bu nekk du ñu dégg loolu ci exemple yi ñu koy joué ay théâtre di offusquer sax ay ay ay ay ay xeet sans pour autant que les gens en rendent compte. Mm-hmm. waaw loolu nag mais su fekkee ni dafay commencer am ñu dem ba on l'a quelque part socialement légitimé socialement légitimé mooy dañ koy wax sans pour autant mu gêné wu benn exemple rek laay joxe fii ci biir Afrique. Mm-hmm. am na peuple yu ñu wër yoo xam ne nii. Côte d'Ivoire Mali ainsi de suite bu ñu ñëwee suñu dëkk. ñàkk lañ nan lañ leen di wooyee am na tur boo xam ne nii sax. Mhm. tur bu tur péjoratif lañ leen di tuddee. Mhm. te loolu dafa dafa commencé nag caxasoo ak ñun suñuy comportement en tant que sénégalais. Mhm. te je peux vous assurer que moi suis assez bien placé pour le pour le dire dafa mel ni réew moo te loolu c'est très dangereux pour un pays réew doo ci nekk et Senghor l'avait réussi. tey même yenn sant yi boo santul yenn sant ki son wolof. automatiquement les gens am na fooy soxla sax ñu ne la demal wuti nationalité. mais dañ lay wax dañ demal wuti certificat de nationalité. Mm-hmm. alors que beneen sant moom su ko santee kenn du ko laaj loolu. te man damay faral di wax ni man par exemple man Sanogo laa sant. Mm-hmm. mais sama maam Bala sant sama beneen maam sant Ndiaye. donc Afrique ñun ñëpp ay métis lañ boo dégloo wayu Tiken Jaffa Coly mu lay expliquer comment on a déporté wolof yi yóbbu fii euh, Moré yi yóbbu fii Susu yi yóbbu fii nga xam ni conférence tubaab rek ci conférence de Berlin moo ñu yàqal mais africain yëpp ay mbokk lañ. rawatina nag ci biir réew mu ndaw mi nga xam ne ñun defuñu sax vingt millions yu mat sëkk ñu commencé di fi indi ay histoire vraiment kii lii la waruñu ko enterrer fii kii lii la waruñu ko enterrer fii je trouve ça extrêmement problématique te buñ si jugul affaire bu ndaw la ci ay affaire duñ fi suul diw mais réew yu bëri yu toj mun naa ci joxe Côte d'Ivoire nii la commencé woon la problématique de l'ivoirité s'est posée ñuy wax kii moo yor deret ji ki moo yor juddu bi ba gis na limu li mu li mu jur jur ko mm-hmm. or à la base caste dafa war boole mais warul tàqale mais malheureusement euh, socio historiquement et socio anthropologiquement nit ñi seen xam-xam soriwul ba xam ni yow lawbe bi ngay wax nii wala géwél bi ngay wax nii mais tey nañ ko wax ñu bëgg ko ñu bañ ko manifestation ak événement boo mën a am ci Sénégal bu ci géwél bokkul du neex. Mm-hmm. ak nga bëgg ko nga bañ ko bu ci bokkul du nekk. Hmm. ngénte boo dem ñu def yëfu diine suñu paree bu géwél bu jottaliwul ba ci sax ko ba ci les familles religieuses. Hmm. Hmm. da ngay gis màggal wala nga gis euh, gàmmu. ñi fay jottali seen baat jik lool famille religieuse bi. à la base souvent c'est si vous voulez. Euh, ay ay ay griot donc ma jàpp ni. amul un sénégalais qui a peut-être si vous voulez un substrat supérieur à d'autres. ñun ñëpp ñoo yam ci même pied d'égalité te loolu dafa jéggi sax Sénégal ñu buggee aujourd'hui ñu ñu aller vers les cimes de l'émergence partout à travers l'Afrique dañu war a d'abord xeex unité union union africaine bi ñuy wax ak unité africaine bi lan moo koy yàq peuple boo wax mu ne non non man du ma bokk ak diw parce que ñii du seen morom. mais loolu Afrique su koy def du ma États-Unis ci loolu la basé wu ba ba fond de développement. Mm-hmm. aujourd'hui yaa ngi problématique de mm-hmm. su ñu nekkee si monde boo xam ne on la montée si vous voulez dem gis nga la problématique Zemmour. waaw léegi ñun ñu war a boole suñu biir pour am doole pour jàmmaarloo ak ñi nga xam ne dañuy xeet ñun benn petit petit pays bu ndaw bu nekk ci biir Afrique ñu commencé di fi indi vraiment ay kii duñ ko suul fii kii duñ ko suul fii surtout nag bu fekkee ni koo xam ne way dawlu la way dawlu mënul boppam dara. lu mu def dañ ko ko defal. Mhm. je trouve que c'est très lâche. koo xam ne nii dañ koo war a suturaal dañ koo war a war gunge ci ay fanam yu mujj ak lu mu mënti demee war nañ ko suturaal parce que nit la loolu nag dafay poser ci sociologie li ñuy wax la crise de l'empathie. maanaam. Mhm. Euh, euh, Sénégal se rendre wuñ si mm. mais dañoo dem benn jamono boo xam ne nit ñi ñeewant. ñeewant yërmande amatul yërmande non amatu. fi mais docteur dañuy romb ko accidenté au lieu que ñu wallu ko ñu. taxaw di photo pour am ay vues. ñu taxaw di photo pour am ay vues ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est à la limite problématique. ce qui mais lan moo tax te pourtant dañu dañu nekkoon peuple bu sensible yërëmante dimbalante ñu naan Sénégal midi bu jotee kër goo dugg añ ndax yërmande mi ngi fi woon mais lan moo xew ba ñu basculer dem ci euh, manque d'empathie boobu noonu ngay wax nga xam ne léegi moom euh, daanaka yeneen niveau la ñu nekk mais ay yërmandeek nekk fi di calculer nit ñi moom dépassé nañ ko ñu ci mais lu bëri moo xew lu bëree bëree bëri bëri moo xew xam nga li xew mooy hmm. euh, ñun ci jamonoy année peut-être soixante dix huit soixante dix sept quatre vingt yi lañ judd mais suñu suñu mënee laaj ñi nga xam ne ñooñu jiitu xam nañ ni Sénégal na mu naatee woon ak léegi bokkatul xam nga suñu borom daf ni man ku ma bëgg a jaamu man. Mhm. da nga koy jaare ci nit ñi. dëgg la Sénégal nag amoon chance wu même sax ci a sport ak yooyu da ngay dem ñu gagné ñu ñun ñu gagné ñu de. ñun ñu mhm. tàcc ñëpp félicité na lii rek fola rek. Mhm. on n'était pas on n'était en fait c'est véritablement maintenant la civilisation du chauvinisme gis nga nationalisme bi ñu wax dafa monter Europe dafa commencer dugg nit euh, vous êtes d'accord avec moi que bi ñu gënee nekk xale dañ doon am mbokk mm-hmm. ñu ñëw suñu biir kër ñu bëgg a jug ñibbi heure añ ñu leen di forcer bay jooy ah. na leen du benn nga gis sa yaay wala nga gis sa tànk tey doo fi juge te lekko mm-hmm. mais léegi balaa ngay wax maa ngi dem sax ñu dàq la nga dem parce que ku nekk day calculer. loolu ba nga ñëw nga ma koo wax. c'est xam nga nag loolu nu nu très vite dafa am ay mutations sociales yoo xam daf ñoo yóbbu daf ñoo dafa effriter le communautarisme africain ambiant dugal ñu ci société individualiste moom laa la doon wax sànq depuis que bopp sa bopp gi depuis que mën a mën a gi commencé ba léegi ku nekk di xalaat d'ailleurs da ngay dugg si famille les gens ils vous je pense à moi et ma famille le reste vient après te bu njëkkaan da ngay gis ne en fait euh, tout le monde cultivait la mort individuelle pour la résurrection collective maanaam man sama bopp sama jëmm ji amul solo l'essentiel mooy man samay mbokk sama waa kër sama famille samay xarit sama koñ na ñëpp am jàmm man après même su fekkee ne sax man damaa war a sacrifier pour ñoom ñu am jàmm ça va se faire et d'ailleurs de bopp sa bopp moo xew gis nga tey booy tudd ay panafricanistes yu mel ni ay ay ay Amilcar Cabral nga gis on on a clairement dit à Amilcar Cabral il est il lii soo ci continuer c'est sûr que dañ lay rey mu ne su fekkee ni man dañ may rey te man projet bi continuer ba sama xeet am épanouissement ya a pas de souci mais fii sama boppam la gënal léegi du bañ naa la ci la nit ñi toll. Mm-hmm. je peux vous assurer que buñ doon dawal yërmande gi sunu maam yi daan dawal nga xam ni da ngay yeewu suba sa biir kër nga fekk fa sàq dugub fekk fa lépp te doo xam kan moo la ko jox. Mm-hmm. ci sutura yow daal dañuy xaar ba guddi. ñu ñëw nànk tegal la ceeb tegal la saaku ceeb parce que xam nañ ne yaa ngi ngénte wala xam nañ ne am nga xew wala xam nañ mais comme vous l'avez si bien dit loolu laa sànq c'est c'est c'est cette absence de culture d'empathie gis nga boo gis mi ngi yërndu moroomu sénégalais pour am lu mu ko xamal pour yàq dara. mais est-ce que du yi tegloo. oui c'est j'ai dit mais mais mais mun na ko ex mun na ko expliquer mais du raison. en fait mm. j'ai j'ai parlé d'une société individualiste dès vous dès l'instant où vous parlez de société individualiste. Mm -hmm. vous parlez de société mercantiliste. une société mercantiliste mooy société accumulation. dajale am denc. dajale am denc rënk. Mhm. waa épargne. Mhm. donc loolu nag te yow nga gis ni ñun suñu maam yi daawuñu fanaanoo dépense. lu ñu am suba ba ngoon dañuy xool seen benn mbokk moo amagul mu dajale. Mhm. suba suñu xëyee wutiwaat. waaw bu nag famille dafa jógee ci famille élargie yi tënku ci famille nucléaire ñun ñu mais mais tey bul sax sori quoi di wax ay ay ay truc da ngay gis dans une même famille ñu gis nit ñi bokk ndey ak baay ku nekk. sa intérêt wu njaboot ak sa intérêt wu bopp ak sa projet de vie wu bopp ak sa njaboot nga lijjanti. soo ko lijjantee ba pare le reste après te ñun ñu ñëpp nag ku ci jël sa exemple rek nga xam ni fin du mois su jotee. Mm-hmm. rek la nga sa scolarité li ngay jëkk a xalaat. say mm-hmm. doom fi nga dëkk say dépense say carburant ba régler affaire yooyu yëpp après ngay soog a xalaat alors bu njëkk ba li nit ñi dañ doon jox ñeneen ñi seen i mbokk yi ba mu des ñu soog a xalaat seen bopp loolu nag effectivement vous l'avez dit crise économique su su su su heurtelee nit ñi. ba ngay xalaat est-ce que dinaa war a am lu ma war a mën a fajoo lu ma war a da ngay dem ba en fait tiit googu tiit léegi nit ñi dañoo tiita tiita tiita tiita tiit mm-hmm. koo ci gis mi ngi kër kër yi mi ngi kër kër yi mi seen fit yi sax deseetuñ dañu ànd ak fitna mais fitna boobu dañoo pression sociale boobu moo nit moo tege si ñun ba ñu fàtte ni askan soo ci dëkk li gën a am important c'est pas le temps mais c'est l'humain xam nga mais mais loolu nit ñi dañ koy wax nii rek nit ñi ma gënal alal mm. mais nit moo gën a am importance alal léegi nag li George Simmel doon wax dañoo dugg civilisation boo xam ni c'est l'argent et la réussite qui sont devenus les véritables dieux hmm. du monde moderne hmm. nit ñi dañu xalaatuñu lu dul am xalaatuñu lu dul d'ailleurs à la base boo gisee les préjugés qui se cachent derrière ça mooy da naan non waaw suñu tel tel tel xeet suñu duggee def ñuy dañ ñuy um su ma gisee tel telle personne le matin mu sol telle couleur de mais pour dag negee ñu leen fi suulee dañuy um par respect rek xam nga yow journaliste nga tu peux le dire mais en la réalité c'est ça mhm. mais léegi damay laaj quoi xam nga kooku ñuy suul suuluñu ko fu ay nit di dund mhm. dañ ko suul ci ay woy dawlu mais mais léegi imagine je sais pas si les Sénégalais ont ont un le symbolisme donc da ngay con da ngay def ay considération bay def considération ni boo ko suulee ak ñoo xam ne nii nekk ñu ci xeet boobu il risque de leur porter chance mais quand même il faut c' est, c' est aberrant à la limite c' est aberrant je crois vraiment que et maintenant à ma grande surprise dégguma benn communiqué de la part des ñu def ko ci lii te dama jàpp ni lii lu ndaw la de peut être benn épiphénomène na mais waroon nañu communiquer ba ba dëggalaat encore matérialiser que Sénégal li fiy daw mooy état nation te gis nga li ma lay wax nii. mais mais autorité yooyu ñoo daw seen ay responsabilité parce que autorité bi leen gën a jege mooy le le préfet ou le sous préfet bi mu ñëwee daf leen ne bàyyi leen ba élection yi passé ñu lijjanti ko. ah vous voyez parce que léegi moom jàpp na ni voilà il y a des considérations électoralistes alors que lii c'est très grave man d'accord ma ci association ressortissant de ñun ñëpp Sénégal lañ nekk nañ bàyyi séparatisme yooyu on s'en rend pas compte mais à koy def peut-être que ci intention yu bonne d'accord ma nga def benn association ne ñun xeet tel association des xeet tel association de ñun Sénégal benn bopp lañu koy lépp ne kenn mënu koo xar ñaar. Mm-hmm. association war na mën a am séeréer am tukulóor am banbara am saraxole am wolof ñun ñëpp ñu bokk ko ñu ne ñun kat suñu association bi soqali jigéen mu jëm kanam la ça je peux je peux comprendre mais association yoo xam ni dafay am ay soubassement si vous voulez peut-être que au début ñi koy sanc duñ ci am duñ ci am projet boobu. Hmm. mais après mënoo xam ñan nga koy legee. ak hmm. ñooñu lan moy nekk seen esprit. te réew yëpp laa la dans dans l'histoire euh, peut-être universelle réew yi nga xam dafa yëngatu yëpp. wala même monde bi ba ci guerre mondiale Hitler bi mi ngi mi ngi jugee ci ay problématique de purification de la race. Mm. donc gis nga ay problématique gu race sax hmm. problématique gu ethnie dafa war a tëb. maintenant qu'on puisse parler davantage des concepts de culture et de peuple gis nga yii ñuy wax ni a caste yi dafa war a tëb actuellement ni dañ ko war a dépasser et qu'on puisse parler de peuple dañuy wax le peuple griot le peuple si vous voulez euh, bûcheron le peuple tëgg le peuple comme ça ñu xam ne ay peuple lañ mais même caste ak ethnie dans l'anthropologie socioculturelle c'est péjoratif man franchement man awma benn problème si ah man am koo xam parce que en vérité loolu ay manteau yu ñu sol nii la rek mais est-ce que su ñu nekkee université man ma am collègue boo xam ne nii véritablement il est te mu raw ma fuuf yor ay galom yor agrégé am ñu naw ko ci liggéey bi muy def mais dama ko war a jël est-ce que dama ko war a jël en fonction de man man ak moom li ñuy def ci suñuy recherche université wala en fonction de moom ci kastam te dégg nga fi dañ koy foowee même ci wàllu politique dañuy fal nit ñu ne di waruñu jiite parce que su jamono neexoon man buur laa war a nekk te pourtant c' est de grands intellectuels qui le disent. Mm-hmm. xoolal bu baax télé beeg rajo bi koo fi invité. Mm-hmm. suy bind livre am wala muy bind il commence d' par le culte du moi. il parle de lui de ses résultats de ses trucs mais Sénégal gii ak koo fi mënti doon ak koo fi mënti nekk munoo ko tabax munoo ko def dara te nit ñi jàpp ñu ci nit ñi consacré wuñu mhm. soo santee Sonko wala nga sant Wade wala nga sant Sall après rapidement les gens commencent à faire des corrélations mhm. moom est-ce que Kébémer la dëkk moom est-ce que Matam la dëkk moom est-ce genre de choses mhm. élection su jotee ñu naan euh, am na lu pulaar yi di wax seen biir yo yooyu moi je peux être waaw ne da expression yu ndaw yooyu dañ koy xeeb mooy déstabiliser pays yaa ngi dégg mm-hmm. après vous le peuple casassais ça c'est des expressions à bannir en à Casamance et à Ziguinchor c'est des Sénégalais à part entière qui sont là-bas mm-hmm. et qui croient si vous voulez au caractère indivisible de l'État personne n'est plus patriote que la preuve soo jëlee suñu équipe nationale bii ay Sadio Mané nga fay fekk mm-hmm. Henri Camara nga fay fekk Khalilou Fadiga nga fay fekk mais Sénégal c'est paradoxal su fekkee ni sport la ñu dem gis ñooñu ñu def de ñu nekk de grands joueurs wala de grands trucs tout le monde applaudit maintenant suñu ñëwee feneen mais da wax ak nit sax ñaari baat mu ne la ñëw yow ñibbil Mali wala ñëw ñibbil Côte d'Ivoire wala yow doo sénégalais même en blaguant pour moi c'est des choses qui qui ne se disent pas parce que gis nga réew mi li lii li ko fondé moo gën a moo gën a ëpp doole ñun li ñuy ay sant yi sant sax arab yi dañu cee raw ñoom dañuy wax diw ibnu diw. te Mouhamadou mm-hmm. Rasoul laay tey mosoo dégg ñu ne la. Mouhamad mm-hmm. ibnu Abdallah lañ lay wax. Mmh. donc parce que dans l'histoire des arabes xamoon nañ ni pendant un bon bout de temps dañoo gëm aussi ñoom par ay problématique de purification de sang mmh. donc très vite ils ont réglé ce problème là à travers la suppression des noms de famille mm-hmm. et depuis lors mais ñun dañuy ñun ñooy wooy nii nga sant nii nga loolu amul solo diw nit daal mën nañ la wax rek sa papa ñu ñëw toftal ko ci mm-hmm. mais même su fekkee ni mënul nekk ñun dépassé nañ loolu tey su ma gisee un Macky Sall dama koy juger par rapport ak son programme politique par rapport ak son ak son action politique mun naa nekk joolaa man ma votel ko te du tere dara man ak Sonko ñu nekk parent mhm. mais mun naa nekk aussi alpulaar ma votel Sonko te du teg man ak ñu nekk parent parce que mhm. li may xool mooy intérêt mais waxoon ko ci élection yi mhm. Euh, bi mu jàllee j'avais fait un article pour dire attention au repli identitaire. mais affaire xeet yooyu tàmbali woon nañu ko dugal ci politique. mais bien sûr mi ngi fi ba léegi. mi ngi fi waaw sànq ma non je sais pas si vous m'avez suivi. si je t'ai dit tout à l'heure ne gis nga affaire bi ngay gis ni goutte d'eau bi la rek moo déborder ci vase bi. Hmm. mais ci ay champs sociaux yu bëri dañ ko fee commencer gis. boo bëggee nommer ay nit ñu ne la fay attention mënoo ko nommer parce que. Mhm. repli identitaire boobu na gis nga suñ ko dawul ci biir réew mi ci wàllu politique ci wàllu surtout ci wàllu aussi ay joxe ay ndomba tànk. Mhm. al ma ma ma ma ma porox ndollu. man je suis musulman à part entière. Mhm. mais je trouve incongru réew mu mel ni Sénégal. vraiment je trouve extrêmement incongru ñu jël poste de responsabilité nekk ci institution yëpp même num Benoît Sambou laa gis. Mhm. ñu jox ko fi benn institution boo xam ne nii c'est même pas une institution digne de son président assemblée nationale président alors que yooyu dañ ko dañ ko dañ ko war a xoolaat. Hmm. premier ministre ñu ne parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk quoi en fait. Mhm. que musulman yi di waxtaan ak catholique yi mu nekk dialogue islamo-chrétien que séeréer yi di waxtaan ak mankañ yi mu nekk dialogue interculturel léegi nag. loolu mënoo ko am réflexe boobu parce que man franchement sénégalais ci seeni choix ci seeni perception gis nga balaa ñu lay wax ñuy joxe seen avis li ñu lay njëkkalaat moom lan la moom fu mu dëkk moom fu mu cosaanoo moom fu mu xeetoo. Hmm. ce qui est inadmissible. ñu nekk deux mille vingt deux bientôt yow sooy considéré nit wala nga koy jox ay cër wala nga koy jox que day nekk en fonction de moom ban caste la bokk ak ban ethnie la bokk ak loolu dafay fragiliser état nation parce que nag fii Senghor loo ko mënti reproché dafay bàyyi état nation bu solide solide solide solide day jël benn joola affecté ko Thiès mu def fa trente ans kooku jur ay doom tuddee ko ay Thiès waa mm-hmm. bu buggee takk jabar mu bàyyile ay doomam wala mu bàyyile boppam ay ñoo xam ne nii ay wolof souche lañ wala ay séeréer finalement mu dem ba da ngay gis séeréer boo xam ne nii ak jola boo xam day làkk wolof mieux que les wolof. mais moom Senghor catholique la woon te teewul sëriñ si fi nekkoon période. Ah, boobu ñëpp moom la ça c'est un exemple hyper ah. mais vraiment gis nga euh, ñun ñi nga xam ne nii on a un peu l'œil observateur xale yi beneen affaire bo am importance même xuloo. Mm-hmm. soo buggee gaañ nit da ngay dem ci waasoom da ngay dem ci xeetam. Mm-hmm. même boo bëggee gàkkal deru nit da ngaa koy amoo loo wax dugg ci même boo ko bëgg waa xas la mm-hmm. problématique xas mm-hmm. su bëggee humilier un individu au lieu que ngeen wax li ngeen jotee déedéet da ngay def da ngay déedéet doo ko wax ne ko vraiment li nga ma def nii neexuma yow vraiment yow muusoo li nga ma def nii metti na ma waroo ma ko defati déedéet da ngay ñëw ci maamam sa maamaati mm-hmm. maamam say deret say xeet et ça il me semble que c'est c'est c'est inadmissible boo ko mun boo ko munul wax loolu nga dem sax bay jël ay notion yoo xam ne mën na friser tam tam xam mais loolu nag dafay désacraliser l'espèce humaine te nit ñi bàyyiwuñ ci xel te encore une fois je le répète boo gisee suñu borom wàccee ñu fii def ni même su suñu jaamu su munul mucc ayib mm-hmm. au moins mun nañ ko dabu suñu moroomu nit ñi mm-hmm. te pour man nit nan ngay amee considération ci moom mooy gëdd boo ko jox en tant que nit parce que yow nit nga loolu nag dafay firndeel li ñuy wax nit nit rek ay garabam mm-hmm. waaw léegi su fekkee ne nit ñi tey garabam nag nit aussi du taxaw ci garab ba pare di cor ay branche man de personnellement maa ngi ñaan sénégalais yëpp ñu jàppee seen moroom ni ñu jàppee seen bopp ñu jàppee seen moroom ni ñu jàppee seen bopp ci respect ci considération ak ci jox gët te loolu j'insiste sur benn amalgame bu may dégg ñu bëri di ko def la tolérance mm-hmm. ma ne ci suñuy approche entre nit ak nit tolérance waru fa rek dafa war a dox respect moo gën a fort tolérance. Mhm. mais respect mooy mhm. hmm. que amul tam fu ñu fayre euh, ci. Hmm. dundinu askan wi par exemple ci wàllu ci wàllu éducation mais surtout ci wàllu diine ndax li ngay wax sànq dafa bokk ci li yàlla wax wala yonent bi sallallahu alayhi ne du ngeen hmm. bëggante fii euh, yéenewu leen seen bopp li ngeen yéenee seen morom donc mhm. li nga buggal sa bopp nga buggal ko sa morom foog naa ne kooku dina am beneen bët boo koy xoolee bu dul ne maa ko gën ci wàllu waasoog maa ko gën ci wàllu deret est-ce que tam chef religieux yi balaa may ñëw ci ci gouvernant yi ndax frein de développement itam mi ngi ci mbirum waaso Euh, koo war a mm-hmm. àndal ngeen mottalante ngeen suqalante mm-hmm. ay réew mën a booloo ñu naan déedéet duñ ànd ak ñi ndax euh, x raison frein de mm-hmm. développement la mais est-ce que ñi nga xam ne ñoo ŋànk tey diine ji waroon cee yar nit ñi ñu tënku ci amul fu ñu fayiree mondialisation itam sànq bi ngay développé sentir naa ci peut-être conséquence mondialisation ndax xëy na ba jusqu'à un passé très récent euh, yëf yi demeewul woon nii mais ñu jékki-jékki rek basculer ci loolu indil ñu yeneen civilisation yeneen façon de dund yoo xam ñun xamuñu ko woon ñaari ponk yooyu est-ce que itam mënuñu ko cee laax comme comme raison sax effectivement aussi ab dañu ma ko laaj ma ne leen de toutes les façons euh, il faut pas bon chef religieux yi xëy na ñu ngi wax li ñuy wax mais xamuñu dañoo amul culture religieuse c'est ça la vérité dafa am benn benn benn bu intellectuel bu mag bu man naw lool ñu koy wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum li fi wax du fay lan la fi wax daf ne réewum Sénégal mi ñu nekk nii aada moo fi ëpp doole diine loolu koy jeexal na wax am déet lool je crois que mës nga dégg wax ah, boobu waaw daf ni aada moo fi ëpp doole diine waaw su fekkee ni nag aada fi ëpp doole diine perception yi ñuy yi ñuy wax ak représentation yëpp mbiru aadala dara du ci diine même ñoom le fait que ñu diw duñ ko suul fi il est évident que affaire de affaire de affaire de et non nekkul affaire de diine donc xëy na euh, loolu aussi ça s'explique mooy balaa diine di fi dugg dafay fekk keddo loolu la ñuy wax les survivances socioculturelles mm. dafa am ay dëgër bopp yoo xam ne nii réalité socioculturelle dañ ko dëgër bopp c'est des c'est des faits ancrés c'est des faits immuables cest à pour nga yëngal ko day jafe lool mën nga jàpp ne dagg nga ko ba dagg ndeke ca racine bi des na mm. te loolu nag ci suñu dundin bis bu nekk da ngay sentir ni sénégalais yi ils sont beaucoup plus dans le syncrétisme religieux que dans la religion syncrétisme religieux mooy nga boole ay pratique païenne plus tuuti religion mais fii da ngay ñëw julli ba mu neex la après nga yor sa béjjën dem examen def ko nii après nga ñëw toog suba suba rek suba. Mhm. suba incha allah rabi en partie de dix huit heures dix neuf heures lépp li nga nar a gis ci làmb ci genn wàll gi yëpp lu ci bëri dina nangu te ñun ñëpp dañ naan waaw diw am na dañuy seetaan affaire yooyu mais bon ça fait partie de nous donc daf lay leer ni effectivement pour que. pour te confirmer li ngay wax pour te conforter ci sa position. Hmm. bu doon dañuy dañuy inspiré wu ci sunu diine yi ñu gëm. muy diine hmm. ak diine l'islam lii kenn du ko fi mës a hmm. parce que lan la je crois que yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ba ñuy naan laa taskuru halkaakum illaa bi xayrin. seen way dawlu bis bu leen wanee ginnaaw bu leen ko indil benn tilim tilim wala lu ñaaw. waaw koo xam ne mënul yow yow amoo sax lu ñaa loo ko waxal de nga ji moom xeetam. te xeetam benn yoon. yow nga am tuppewu di diir dafa am fu ñu war suul ñi set ak ñi war a suul ñi tilim te yow kan moo la jox gradu set ci ñi tilim hmm. d'autant plus que képp ku génn àdduna yow benn affaire rek nga yaakaar hmm. l'absolution et le pardon suñu njëgalu borom hmm. mais xam nga suñ demee nag ñun bay siisante ci naan suñ la suulee vie da ngay porter euh, ci malheur ñi nga xam ni ñoo nekk fële pour moi c'est gravissime donc gis nga te loolu peuple Sénégal donc xam nga léeg-léeg nit ñi dañ koy fooye ne ñun dinañ dem ba yow mal xiyaam indi fa ay problématique yoo xam ni mhm. kenn du xam foo koy waxee xam nga lii kenn mënu ko wax man li a mhm. a mu nekk nit ku génn àdduna waaw xam nga ku génn àdduna kuy dund sax yow mënalu la dara boo boo boo xam ne kuy dund mënalu la dara absolument nag koo xam ne mënalatul sax boppam waaw léegi waaw ku loolu moo maanaam xel yi ñoo dellu ginnaaw daal moom bien sûr mais te léegi Sénégal kat ñoom dañuy ñun dañuy jiiñ suñu bopp ni nous sommes le peuple le plus intelligent le génie sénégalais. dañuy jàpp ne ñoo gën ñëpp. mais man je aux gens mais bon sang le génie sénégalais là il faut le matérialiser en pratique et en acte xam nga li suñ ko tegoon RFI wala ñu teg ko ci télé yu ñëpp ne Sénégal. am na benn dëkk boo xam ne man la ma ci xaw a metti sax moo ma ci a def ay rêve man mm-hmm. Thiès laa dëkk te mbir mi Thiès la xewe mm-hmm. donc nga gis ñu ne am na benn dëkk bu ndaw boo xam ne dañoo war a bëgg a suturaal ab nit ñu ne duñ ko fa suul parce que juste dafa bokk ci benn askan je dis vraiment c'est à la limite scandale scandale scandale scandale bu dee dañoo juum man jàpp naa ne dañoo waroon génn def seen mea culpa te ñu jaaree fi nag ñoom ginnaaw yi wëlbati nañ ko ci mbirum diine ni wàllu ngëm-ngëm la mais même loolu. mais amul benn diine amul benn mieux. Mm. Sénégal à Ziguinchor tey boo fa demee pour vous dire tout à l'heure. am na cimetière mixte pour conforter li ma doon wax nii. Mm-hmm. ñi dëkk Casamance personne. kenn mënu leen am dara loo leen di joxoñ baaraamu tuuma par rapport a des comportements citoyens irréprochables xoolal Ziguinchor dafa am cimetière mixte les cimetières sont mixtes mun nga chrétien day tëdd fii catholique tëdd fii. Mm-hmm. waaw mais ñoo xam ni ñoom yàlla rek lañ yaakaar kañ. Mm-hmm. ku nekk war naa a ñëw defal ci say rite ak say pratique. Mm-hmm. kii musulman la nga defal ko li nga a defal. gunge ko kële catholique la nga defal ko li nga a defal. te du yàqal keneen dara. waaw dafa bokk ci dundu nit mais wuute moo tax yàlla def ñi catholique def ñi athée def ñuy truc mm-hmm. su ko neexoon mu def ñëpp ci benn ci ci benn buum mais def ni yéen ñëpp ku nekk nekkal ca la nga nekk mm-hmm. ma leen di mesurer nag ci man ragal bi ngeen ma ragal ak topp mm-hmm. bi ngeen ma topp su ngeen ñëwee mais ku nekk ma fay la nga def ni plus ni moins mais ñun ñu bëgg nekk ci et puis ce qui est paradoxal aussi mooy ñun ci suñ ñun biir julliti lañ ak nga gis ñun suñu diine l'islam ni mu fonkee nit waaw vraiment loolu. mu ngeen gëm fii ak bëggantewu leen te du ngeen bëggante lu dal yéenante ngeen. mais ne li mu bëggal moromam loolu kay leer am na démb laaj nañ ma ci woy année bu metti bi. Mhm. année bi lu mu metti metti metti metti ku nekk su xaree sa xol bi dugal ci sa morom loo mhm. gis mu koy arrangé nga koy def suba ba ngoon njiiti yërëm ñi nga xam ni ñoom lañ jiite ñi ñu jiite aussi am respect bu mat sëkk ci effort yi njiiti di def su boobaa quel que soit natt bu ñëw suñu borom épargne leen ci mais nañ ko wax nañ ko nañ ci def taxaw seetlu ñu toog ñun ñii bëggante wuñu ñun bëggante wuñu c'est ça le souci ñun bëggante wuñu bëggante wuñu benn yoon loolu moom mooy suñu jafe-jafe aujourd'hui hmm. dañoo bëggantewul tey bëggante wuñu suba donc à telle enseigne que maintenant bon euh, jafe-jafe du fi mooy li nga wax ni xam nga yàlla moom du waxantu hmm. sunu borom du waxantu te lu mu wax dina ko def loolu moo tax nag souvent je dis aux la voie à tracer et à suivre c'est la voie de l'humanité tant que ñun amuñu jaxasoo ci ñun suñu biir ñun nit nga nekk Eskimo nga nekk japonais nga nekk chinois ku ne fonk sa moroomu nit am na yaakaar duñ ci génn léegi. di ko xoolee mbindeefu yàlla. alors léegi nag ñu ñëw ci responsabilité wu ñi ñu jiite parce que tey nag am na nu kilifa yi réew mi doon doxalee teg lépp ci wàllu yoon xëy na dina am yoo xam ne tey dootu fi xaj. Mm-hmm. waaw mais xam nga xam nga xam nga xam nga ñun c'est ce que j'appelle une crise d'autorité maslaa ak nëpp nëppal tant que bàyyiwuñu ko muy man sama moroom bu am ñoo xam ne nii defuñu lu yoon c'est pas parce que dañ nekk ay chef de tel chef de tel dañ leen di teg ci yoon parce que Sénégal appelé il faut prêcher par l'exemple gis nga tant que autorité bi la ñuy wax le monopole de la violence légitime mu am ci wàllu doxalin doxalin kenn koo xam ne ni mu doxalee waru ko def nga jubbanti ko teg ko ci yoon ba loolu servir exemple ñëpp réew mi du jóge fii mais ñun on a comme l'impression que day am deux poids deux mesures xam nga moindre chose que ça s'est passé ici ñëpp wax mhm. man très honnêtement très franchement je m'attendais même enfin je m'attends toujours à ce que vingt heures incha allah su jotee tout de suite ma dégg président Macky Sall mu ne mi ngi woote encore à la consolidation des liens sociaux entre Sénégal mi ngi woote encore au brassage interethnique et interreligieux ici au Sénégal parce que loolu mooy le socle de l'État-nation parce que moom fi mu toog di diriger loolu moom moo ko jox ndëgër loolu bis na kenn googu bu yëngatoo rek dara dootoo ko mën a defati Sénégal parce que su fekkee ni ku nekk dafay ràcc jëmale ci booram en tant que ethnie maar day taal yi mën nañoo aussi craindre beaucoup de choses en tant que caste pare et te loolu aussi il ñu saluer ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo bokk ci xeet boobu ak ci waaso boobu ñuy wax. Mhm. même su fekkee ni am na ci ñoom ay ténor yu génn naqarlu ko mais déggoo benn yoon ñu def benn discours incendiaire pour wax ni wane leen seen bopp quoi que ce soit loolu dafay wane ni aussi Sénégal quand même maturité bi ba léegi am na ci ñoo xam ne ni moom lañ dans d'autres pays lu mel ni d'ailleurs tey Hutu Hutu ak si dégg nañ ko fi au Rwanda. Mhm. Seleka ak ba ak ak Baleka. dégg nañ ko fi en Centrafrique. Mhm. waaw donc ñun ñu war a xool ci yooyu pour éviter ce te gis nga gis nga monde bi ñu jëm. Mhm. les grands conflits seront déclenchés euh, par rapport a un soubassement socioculturel surtout culturel sax. parce que même ci ci dëkk tubaab bi nationalisme gi ñuy wax ni xeex yu bëri ak contentieux yu bëri ci loolu lay jóge mais foofu laa doon waxee ne frein de développement la parce que day day day bloqué am réew ci wàllu suqalikoom waaw loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax une conception unijambiste du développement waaw suqaliku boo xam da nga bëgg a ak benn xeet rek te yow nga am xeet yoo xam ne nii amaana mën na am ku nekk soo jëlee énergie am di nga dem ci di nga dem ci kanam hmm. mais loolu kay dama jàpp lan lan la ñuy wax dañuy Sénégal kat dañoo soxla loxo yu doomam yëpp l'investissement et l'engagement de tous ses fils et de toutes ses filles. mooy li nga doon wax sànq rek yow mënoo lu dul napp kay soxla nga ko mën yàtt ndax nga am. foo toog soxla nga kay ràbb ndax nga am. loo soxla loolu la ñuy wax la mais bien entendu. Mhm. mais d'ailleurs su ñuy wax dàllu ngaay boo nee dàllu cuir fii tabaski jot ñëpp ngaay la ñuy tudd. Mhm. tey yi ngay xeeb nii ñun ñu dëkk Dakar yëpp tabaski su jotee mais ñoom ñooy jaar suñu kër yi di di di waa buñ ci jàppul du baax dégg nga ma mu ni mu ni voies yi nga xam ne dañ koy yàtte diñ ko jaay diñ ko mm. truc mais su ci lawbe yi jàppul du truc léeg-léeg nga dégg ku nekk ci difficulté mu ne damay dem sax mën a am sagaru law lawbe parce que mu porté na chance. waaw mm. kon kay kon Sénégal xeet bu nekk waaso bu nekk sax njariñ mi ngi fi à cent pour cent. Mm-hmm. malheureusement nag malheureusement li nga doon wax ci njiit yi ñoom initié wuñu ak ay programme ak ay activités yoo xam ne day densifier. Mm-hmm. xam nga nit bu ngeen toogee lu yàgg waxu leen rek ngeen réeroo. Mm-hmm. mais koo dëkkal di wax ak moom est-ce que tu sais que am na ñoo xam nii ay wolof lañ dañoo yàgg dëkk ak alpulaar ba dégg pulaar. Mm-hmm. yàgg da ngay am ñoo xam ne dañoo dëkk ak ay géwél dañoo yàgg a branché ak ñoom ba ñoom soo leen gisee nga teg leen ko loolu moom mooy loolu mooy réew mu mu mu mu achevé wu. Mm-hmm. ci posture socioculturelle réew yoo xam ne nii da ngaa dem a dem a dem a dem ba mujj gi du ñu xàmmee xeet yi. mooy mm-hmm. da ngay wax ñu ne la ngay pulaar ñu ne la ah yow tu es pulaar man par ñu ne ma ñun on pensait que déggoo wolof parce que léegi-léegi am nga wolof man leen Sénégal moom mooy modèle am mooy loolu. Mhm. mooy mun nga nekk joolaa di wax wolof mieux que les wolof. Mhm. mun nga nekk wolof di wax joolaa mieux que les joolaa mais loolu nag moom mooy xeet boo xam ne nii. pendant ay ati ati ati ati ati ati ci kanam boo tëddee mën nga nalaw mhm. parce que harmonie ak paix du fa jóge mais lii ma gis nii vraiment ci en terme d'approche dafay yànqal jàmm ak salaam bi nga xam ne dañ ko xamee Sénégal. kon yow tey nii ya fi demee lan nga jàpp ni moom la mën a am comme conséquence bu dakkut ban Sénégal la ñuy mujjee am. mais bu bu bu wax naa la ko sànq dama la ko bu dakkut. bu ñu bu bu kenn tiit li xew ci RDC bu kenn xiit tiit li xew ci Côte d'Ivoire bu bu kenn tiit li xew ci Centrafrique bu bu kenn tiit li xew ci Rwanda génocide bi gën a ngand si humanité Afrique la jógee muy Rwanda ci histoire ñoo xam ne presque yéen ñëpp ay pël ngeen. utu ak nga fa. mais mi ngi fii ci ay toit rek ak ainsi de mm-hmm. suite. Mm-hmm. léegi nag problématique boobu andi wu fi terrorisme. Mm-hmm. ah mais gis nga conflit ouvert ak violent yi nga gis wii yëpp wax naa la ko sànq lal bi ko lal bi nga xam ni ci la. laalu yeneen i buntu lay ubbi. mais amul yeneen i buntu lay ubbi parce que tey boo déggee ñu naan Boko Haram. ci ku la dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñi ñi jàng arab daal ñoom seen ñoom ñu leen jox gëdd ak cër ci biir ci biir li nga xam ne ni moom mooy réew mi nga xam ne ni moom moo nekk si si si si Nigéria mm. maintenant par la suite qu'est-ce qui s'est passé mooy ñu ne non dafa mel ni daal Occident moom ak lépp lu jàng école donc xaram na ñun tamit nañ jël suñuy affaire jël suñuy matuwaay loolu moom moo indi tey boo ko xaraama ah. donc xew na Nigéria xew na truc te Sénégal dafa am benn position géopolitique stratégique bu mu féetewoo ñun am na loo xam ne bu xasee ba dugg fii moom à la limite enjeu yi du ñun rek Afrique yëpp surtout Afrique de l'Ouest yi mhm. ñoom tamit mën nañ cee nërmeel donc ñu delloo si waat suñu xel xam ne ñun mbokkoo gi dox suñu diggante dafa weesu ay histoire waatoo ak histoire xeet sénégalais boo gis mbokk sénégalais la sénégalais yëpp ay mbokk lañ presque ci surtout nag li ci gënoon am importance mooy mariage exogamique yi ni ñuy suñu société mhm. da gis tey nga nekk soose sa jabar nekk wolof pur nga nekk joolaa dem takki alpulaar nga am ci ay doom yoo xam ne dañ naan sam papa lii la Sénégal moo nekk l'un des rares pays où soo ñëwee dañ naan mon père est wolof ma mère est c'est possible de de de waa léegi loolu ñu chance boobu ñu amoon nii. pourquoi ñuy nangu te considération yooyu aussi il faut le reconnaître avec objectivité bii moo feeñ bii moo feeñ lii dafa feeñ rek ñu médiatiser ko. Mm-hmm. waaw mais euh, man li may wax chaque jour même dans le dialogue islamo-chrétien. mais lan moo tax dimanche warul mën a jot ñu taal suñu télé di déglu lii xew ci jour du Seigneur am na lu ñu fa mën a jëlee loo xam ni jàngat la bu ñuy bu ñuy gën a yokk ci suñu ngëm lan moo tax jour jeudi forcément les gens doivent zapper pourquoi l'appel du muezzin le vendredi doit doit doit doit déranger ou énerver pourquoi les cloches et les sons euh, de l'appel de l'église doivent aussi déranger ou énerver c'est ça tant que réew tolluwuñu nag dépasse dépasser élément yooyu du ñu mën a wax une société équilibrée fii dama yàlla baal Sénégal dafa am wax ci kaw wax ci suuf boo nee dialogue ñëpp ne waaw waaw ñun ñëpp ay mbokk lañ mais koo ci wax mu sëgg ci suuf ngunu ngunu ah moom de baax na lool waaye xeetu bokk waaye hmm. c'est ça c'est ça le souci aussi quoi hmm. si il y a voilà un paradoxe hypocrite qui ne dit pas son hmm. pourtant ñu la cousinage à plaisanterie loolu voilà doon bëgg a ñëw sax loolu ah, chance la woon ndax cousinage à plaisanterie boobu décanté na ay désamorcé na ay bombe yu bari effectivement yu bari bari bari bari mais loolu aussi comme li oh. nga wax sànq mi ngi mel ni luy bëgg a raaf di jeex oui mais tey par exemple Euh, séeréer yi ak joola yi dañuy dañuy dañuy kalante tukulóor yi ak. voilà hmm. gis tey par exemple. quelqu'un je sais pas moi dans l'opposition qui est séeréer. Hmm. lu mu bëgg a wax Macky Sall mënoon na ko mënoon na ko. jaaree ci cousinage à plaisanterie te ci ay retaan rek lay hmm. mais léegi dañ dem ba même sax yooyu amatul ay par exemple tey d'un point de vue institutionnel et officiel. waroon nga mën a dégg dans un discours un pré loo xam ni Europe duñ ko fa def France duñ ko def dans un discours officiel un président qui parle par exemple ses opposants séeréer pour dire mm-hmm. ah xam naa ne ñoom daal ay séeréer lañu xam naa ne dañoo dégg teel rek ñu dans dans un discours officiel ñëpp reetaane ko mm-hmm. même opposant yi muy waxal seen seen bëñ génn ci ñu xam ni Sénégal ñëpp ko bu leen naroon a metti sax du leen metti du leen metti mais li ma gis nii fi mu nekk nii vraiment il y de la tension à l'air partout ñun ñëpp koo ci gis yaa ngi nekk ci say grands chevaux di xaar benn affaire bu ndaw kon mbaadu yooya dem moo waral tey lu ñu wax ñaar benn ñett rek dóorante kurpañ ah, déedéet bien entendu ça ce qu'on appelait les mécanismes traditionnels de résolution des conflits hmm. mu am mooy maanaam euh, xeetu jumtuwaay yoo xam ne nii mën nga ko faje ay xiiro ak ŋaayoo te coow du jib ci penc ma la ñuy dem reetaane ko ki nga xamoon dafa mer ba war a bëgg a xeex ñu ne ko waaye yow séeréer bu mel yow keneen ki ne ko tukulóor après mm-hmm. nit ñi dem seen yoon beneen bi mooy aujourd'hui jusque les gens n'ont pas appris assez à ce qu'on appelle la transformation non violente des conflits xiiroo ak ngaayoo mm-hmm. mënul ñàkk mais société yu njëkk yi amoon nañu posture ak dal boo xam ne ni ñoom li ñuy njëkk a def mooy dialogue waxtaan mm-hmm. discuter euh, arbitrer concilier loolu amatu fi da ngay ñaar ñoo xam ne dañuy am problème ñëpp toog di leen setaan ñëpp toog di leen setaan ñuy xiironte di xiironte di xiironte ba nga xam ne nii mais même taux de divorce bi demeewul woon noon mhm. parce que dëkkandoo rek dëkkandoo da doon dox diggante jëkkër ak jabar te yoonam nekk ci bokk leen mhm. dara. Mhm. mais dëkk bu yàgg bi moom dafay jàpp ne d'ailleurs la la ñuy wax dëkk bu yàgg mbokkoo la. waaw léegi nag madame ci appartement Dakar yi da ngay dund ak nit pendant six ou sept ans bonjour bonsoir ngeen teg. sax du ngeen nuyonte. du ngeen sax nuyonte. Eh, société su demee ba toll foofu nag mooy mën nañoo jegante mais du ñu xamante. Mhm. xanaa xamoo ay nit bu ñu xamantee rek ruusante. Mhm. waaw d'ailleurs euh, j'en profite c'est une parenthèse c'est ce que j'ai dit j'ai dit diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko li ci am ni yëpp. Mhm. maintenant maintenant fossé bi dafa creuser wu kenn taxu ci au moins ñuy rencontré benn yoon laa leen mës a wu mooy ci Covid bi. Mhm. xam nga Covid te même jour boobu rencontre bi sax am na image da nga gis Sonko mu reetaan Macky Sall mhm. parce que ay nit bu ñu yàggee rencontré wu nii mais du duñu ay malade sociabilité bi day commencé dugg. Mhm. noo def nga ni salaamaaleykum na ngeen def nag yéen a ngi jàmm. même ki ñëwoon pour mer am na loo xam ne day wàcc mais su fekkee ni ñun léegi nous sommes dans une société de l'enfermement tëju reculer pousse. ah mais bien entendu du ñu xamante te ku xamantewul nag pour nga pëtt yenn frontières yi pour ñu jote day yomb trop. Mm-hmm. waa léegi gannaaw diagnostiqué nañ yëf yi xam nañu fii metti yëpp euh, yow mi sa xel màcc ci wàllu dundinu askan weeg yooya lan nga gis comme solution tey lu mën a génne Sénégal ci guuta gi ndax dugg na ci ba noppi moom. waaw euh, mooy ñu favoriser davantage euh, la culture de la paix positive culture de la paix positive mooy. ñuy suux jàmm li koy suuxat ak di ko doxal ci fànn bi mu war a nekkee waxuma P négatif de P négatif mooy bon man ak yow ñu ku ne mi ngi toog sa kër mooy li ñuy wax li ñuy wax sànq. nga dëkk ak benn dëkkandoo boo xam da ngeen jegante woo du ngeen nuyoo du ngeen jotewu leen. mais en leen waaw loolu mooy la P négative P positive nag xam nga mooy lan. Mhm. di def euh, li ñuy wax les week-end culturels ay jumelage daan na am ñun bi ñu gën a nekk xale. nga dégg ñu ne waa Ndioum ñoo jóge le ta Matam. ñoo seet si waa Sibadoor wala ñu seet si waa Jaxaaw Siin ñu def benn weekend interculturel ku ne génne say say lekk traditionnel say say danse traditionnelle mm. say port vestimentaire traditionnel donc loolu la ñuy wax le rapprochement entre les cultures et les peuples mm. loolu buñ ko defee mën nañ am benn paix boo xam ne nii tout le temps c'est une paix positive def ay tournoi tournoi yoo xam ne nii dañuy jël ñu ne tournoi de la culture pour le Fouta yi alpulaar yi moor yi ku ne indi sa équipe ñu gagné kafre échanger ay maillots suñu ñëwee moor yi comme ni ñuy xew léeg-léeg si làmb ji moor mm. yi indi seen folklore bambara yi indi seen folklore soose yi indi seen folklore ñun ñëpp dina tax xale bi nga xam ne mi ngi ci télé wala mi ngi ciy participer mu découvrir lu mu xamul woon mm. moom mi nekkoon séeréer wala alpulaar dina xam ne donc Sénégal am na yeneen waaso yu fi nekk yoo xam ne am nañ fi toute leur importance su loolu weesoo nag ñu tënk lépp ñu war a mën a tënk lépp ci une culture éducationnelle boo xam ne dafay promouvoir mhm. ñaari aspect essentiel à mon à mon avis benn bi moom la ñuy wax la compétence interculturelle mhm. maanaam yow sa xel ak sa doxalin ak sa xalaat lépp dafay màcc jëm ci jaxasoo xeet yi ak jaxasoo waaso yi mhm. mu nekk réflexe réflexe lay nekk pour yow c'est-à-dire tu vas comprendre une bonne fois pour toutes que ki nekk sama kanam ñu koy tuddee et autrui mm-hmm. maanaam jàmbur wuutewul ak man mm-hmm. sama prolongement la rek mais maanaam man damaa ñëw ba taxaw benn moom fi ma taxaw benn moom moo ko war a yóbbu ñaar su ko mm-hmm. yóbboo ñaar moroomam yobu ko ñet gis nga loolu su teelee dugg si bopp xale yi à travers ay ay module de formation yu tudd instruction civique morale par exemple vous vous si si si tu diffères de moi loin de me léser tu m'enrichis mhm. ñu jàngal ko xale bi ci wolof jàngal ko ko ci lépp mooy mhm. soo wuutee ak man nekkul ni da may xañ dara dara dara dara mhm. au contraire da may yokk encore ay galon da may yokk gras loolu ci ay maxime yu mel noonu comme ni ñu doon jàngalee il faut pas manger de la mangue verte parce que de la colique nit ki di ko màggee di ko màggee di ko màggee ba mu xam ni ah kon Sénégal kat ndekete man wolof laa de mais mbir yi nekkul ni rek dañuy làkk wolof comme la langue, euh, si vous voulez, euh, officielle fii d'accord la langue traditionnelle officielle bu ñi ñi ñëpp i wax nekkul li dama koy wax rek que probablement donc wolof rek la ñu war a wax donc man mi nekk wolof am naa benn suprématie sur les autres déedéet ndekete am na yeneen langue yoo xam ni et puis mu nekk réflexe ci ñun ñu ñuy jàngal ay cours ay ay cours module ay modulaire formation modulaire yoo xam ne nii minimum di nga mën a wax bonjour ci soose. Mhm. di nga mën a wax merci ci soose wax ko ci séeréer wax ko ci moor wax ko ci ci léegi benn sénégalais mën na fi nekk polyglotte au moins ci yenn aspect yoo xam ne des aspects essentiels nan nga mhm. tudd foo dëkk fooy dem nga mën ko wax ci langue yëpp yi nga xam mhm. dañ koy lakk biir Sénégal mais su boobaa da ngay gis ni man sénégalais bu mat sëkk laa parce que quand lakk làkk yi ñu fiy làkk yëpp am naa lu ma ci xam man damay jël sama temps di fortaatu soo ma nee lii laa li ma lay njëkk a mooy lan la ñuy waxee lii ci sa langue mhm. lan la ñuy waxee lii ci sa langue nga tubaab dañ koy def suñ ñëwee fii mhm. na nga def lañ ak jërëjëf la ñuy njëkk a xam mhm. suñ demee c'est un plus suñu la nee mais Sénégal voilà euh, lan nga fa jëlee na nga def je sais dire ñu ne la Burkina nga ne waaw quand ak loo ci mënti dégg ci moré bi donc mën nga wax mën a wana yël kabiye donc voilà aujourd'hui surtout en Afrique suñ ko defee Sénégal génne ko biir Afrique loolu la ñuy wax les compétences mm-hmm. interculturelles beneen bi ci des nag moo ci gën a am solo loolu la ñuy wax la sensibilité interculturelle maanaam sa yaram sa deret ci sa jëf de tous les jours yow da ngay am yëg-yëg bu sori boo xam ne ni da ngay jàpp ni li wuuteeg man ci askan ak xeet ak waaso noon ni ma considéré sama bos laa considéré bos ñeneen mm-hmm. ba ba su fekkee ni nit day wax bambara dooni ar waaye ñii seen làkk bi dafa dëgër suy wax pël dooni dañoo bizarre mhm. suy wax séeréer dañ voilà da ngay am teewlu gu mat sëkk di mhm. déglu lu ñuy wax soo paree ku nekk nga laaj ku ne ko lan nga doon wax nii li nga doon wax lu mu signifié mhm. d'ailleurs c'est ce qu'on appelle avoir l'oreille linguistique maanaam am na ñoo xam tey boo leen doon jàngal benn langue sax pour ñu mën ko day compliqué parce que mm. amuñu sensibilité interculturelle mm. alors que am na ñoo xam dañoo am teewlu boo xam ne nii ci respecté nit mm-hmm. boo leen waxee ñaari baat suñ koy prononcé dañuy gis ki lay jàngal ne la mais yow tu prononces bien mm-hmm. mais parce que lu sa xel ak sa xol luwul nanguwu ko mais pour nga mën ko ça pose problème je dis souvent on dit que dans ce souvent on dit dans ce pays là que que foncièrement telle personne ou telle personne ou euh, na fii mais déggul wolof dama naan non dégguñu parce que bëgguñu. bëgguñu dégg waaw parce que ku bëgg ak ku respecté ay affaire soo amee sensibilité interculturelle. facilement day day mm-hmm. donc yooyu daal suñu reposer aussi éducation. Mm-hmm. rek les problématiques wu bi transformer ko en P positive. Mm-hmm. transformer les conflits de manière non violente mm-hmm. ba pare si ñuy jàng ñu dugal ci ay formation modulaire yoo xam ne dañuy promouvoir la compétence interculturelle et la sensibilité interculturelle mën nañ am askan boo xam ne nii ñu nuru ñi nga xam ne ñu ñun ñooñu fi jiitu mm-hmm. ñu def ko ci daara yi def ko ci aussi même ci service de formation professionnelle même fi ñuy jàngee métier mm-hmm. ñu dugal fa ay affaires yoo xam ne dañuy wax ak ñoom culture et peuple parce que en fait gis nga développement balaa nga ko xaar dañ fay nekk ba pare te nit ñi ñoom ñoo koy porté te nit ñi koy porté suñu amee wuute mhm. ci wàllu cosaan ak ci wàllu xar baax ça peut poser problème day bloqué lépp jërëjëf docteur Abdou Khadre Sanoko amoon na ñu mbégte lool si kak yow waxtaan wi am na solo macha allah di ñaan li ñu fi wax yëpp nag mu doon njariñ lu ci dëng it ci ñun ñi doon jéem a defar dong ndax defar dong moonu ci moonu ci euh, dugal ñu ngi lay di la gërëm ci disponibilité bi en tout cas di itam waxtaan wi ak xalaat yi merci beaucoup di ci profité aussi di leen jaajëfal vraiment euh, rajo ngeen boo xam ne nii euh, fu ngeen amee interpellation ci benn affaire Sénégal ñi fi dëkk. Mhm. bëri nañ borom xam-xam yi macha allah du fi jeex. Mhm. mais seen xel yëpp ci man lay dem loolu nag vraiment ci wóolute rek ci la lalu. donc ma leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal seen groupe de presse bi fi ngeen bëgg mu dem suñu borom eggale ko fa. amiin amiin mais aussi encore une fois may daanalee li ma commencé. Mhm. may Sénégal aussi atum naataange. Mhm. ñu nekk ci jafe-jafe suñu borom génn leen ci ak jàmm salaam. feebar bii di lëmbe réew mi mu musal ñu ci. ñu bokk ci réew yi ci gën a mucc yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla. amiin jërëjëf docteur Sanoko lépp lu ñu la woon itam yaa ko at mi doon at mu gën a neex ci sa dund gi te itam mbégteeg euh, jàmm rek tàmbale fi ñu ngi lay gërëm docteur Abdou Khadre Sanoko si psychosociologue moom la ñu doon dalal ci démb ak tey bi doon waxtaanee wàllum waaso di kast tàmbale woon nag yëngal réew mi fan yi ñu génn waaye yàlla na ci yàlla def jàmm ba jàmm jañu fekkoon mag ñi nekkee woon ñu wéyal ko ndax nag waru ñoo mujjee puso bi mu réer ci sunuy loxo jërë ngeen ah. jëf yéen ñu doon déglu gërëm nañu itam jaawo jàlloo mi newoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha ñu waxtaane leneen keneen ak keneen ñu yendoog jàmm